ah mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ci bés bu tedd bi di guddig rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne ñoo ngi fii ci kër alaaji Momar Ciss monsieur le maire de la commune de Kër Moussa euh, waaye nag euh, chaîne bi nga xamante ni moom la ñu jàkkaar lool di wax ci ñoom dafa am ay kàddu yoo xamante ni dañu ko soxla bëgg mu jóge ci imam bi di Mamadou Ciss di imaamu Tuguni waaye nag jaar ci alaaji Momar Ciss mi nga moi borom kergi di chef de village de maire de la commune de Kër Moussa bu nu ca jógee jox ki nga di di chef de village bu Tuguni bu ko defee du nu guddal ci résumé dañu rek jox imam mu ubbi waxtaan wi ñu jox monsieur le maire mu teg ci ay kàddoom jox chef de village mu tekti ci ay kàddoom nu si ci imam Mamadou Ciss mu ñaan ñu bi ci guddigi rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi ci keur Alaaji Momar sis nga xamante ne ak sunool khalaqina lépp luy xewal di la nuy xewlo mu yàlla def nako fi jaarale ko ci mom mu diko jox julit yàlla yi ci mbaxu yàlla ak daraje rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon imam Mamadou kàddu gaa ngi nii أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بكي السلام عليكم ورحمة الله noo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di njëkk nuyoo bi nag ci kilifa gi mooy al imam Momar teg ci chef de village Abdoulahi fay tey ñu ngi fii ci résidence Al Amine ñuy màggal juddug sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ne nu ko daan defee waaye ci biir loolu am waxtaan woo xamante ne bëgg nañ ko séq ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo fi teew di ay kilifa mën nañ ci cité ku mel na eh, imam Momar Ciss mën nañ ci cité itam ku mel na chef de village mën nañ ci cité ñu bari sax ba ci Ibrahima fay mi nga xame ne moom mooy loxo ndey jooru monsieur le ah, ñu ne woon nag ñu taabal kàddu yooyu te def ñaan ñu dugg ci waxtaan wi kon na ku nekk jàng fatiha ak fallahi ak naase ñetti pero salaatu ala nabi ñu ubbee ko waxtaan bi ñu ñaan yàlla it mu maynu nu nu ko ci bisimillahi rahmaani rahim waaye àggalee ko ca alhamdulilahi rabil alamin kon bisimilah fatiha fallahi naase ñu ubbee waxtaan bi fu waay toll na ko def

anta waliyuna wa mawlana fa ni'mal mawla wa ni'man nasir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin waaw ginnaaw kàddu yi monsieur le yooyu ak ñaan gi mu joxe ci bés bu tedd bii yal na yàlla nangu ñaan yi te jotal lu ko ci mbaaxu yàlla ak darajay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee nag wolof yi dañ bu buum dangee dañ koy yow ci bopp yëkku kuy monsieur le dalaa la commune de Kër Moussa El Hadj Momar Ciss waaye imaam itam bu Tuguni di El Hadj Momar Ciss ñu ngi lay bàyyee kàddu gi di la laaj lan nga xamante ni moom nga am ci yëg-yëg ci bés bu tedd bii di bési rasulullah yi ak wuyu si bii nga xamante ni moom la pele euh, notable yëpp ak pèlerinage yi ànd wuyu si la ko fii ci sa kër wuy si ko kër Seydi Aji Malick ci Tiwaawan ban yëg-yëg nga ci ak ban gis nga ci am monsieur le maire. jërëjëf El Hadj ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am mbégte wala ñu ngi amati mbégte teewaat tey jii ci seen kanam ci bis bu màgg bii nga xam ne ñu ngi koy màggale fii ci kër gi nga xam ne ñu ngi ko tudde résidence Al amiin yal na yàlla yokku leeram te di ko ànd ak waa dëkk bi yëpp muy ni mais di ko ànd ak commune bi yëpp muy commune Kër Moussa comme niñ ko daan defee chaque année di ko màggal fii muy guddi juddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léegi bi ñuy wax wala boog bi ngay def introduction la sama adjoint aksi muy Gabriel Marie Bopp mii toog te ma doon leen wax ci suba bi may lim teraanga yi fi nekk ñi ko def lépp lu fi nekk ci ndox moom mii moo ko indi bëggul ku ko wax nag mais faw ñu wax ko ah, ndax nag buñ la defalee njëkk danga koy wax mooy li ma leen doon wax sànq lépp moom moo ko toppatoo yëpp ko ci oto indi ko fii Euh, yàlla àtte itam mu ñëwati teewati te nag fu ma teewul teew na fa lu ma fa war a def def na ko parce que démb rek maa ngi nekk pari di ko seetaan ci ay événement yu bare bare bari yu muy def ci sama tur fabul téléphone sax ne ma maa ngi def lii maa ngi def lii xale la boo xam ne. chef de village maa ngi leen koy dénk bu baax. jërëjëf. xale la nag waaye maa ngi leen koy dénk bu baax ndax dañuy wax ne xale bu loxoom setee mu mën a bokk ak mag. dépasse bi ma jëkk jëkk jëkk def fii ren jii. fekke maa nga Paris moom mii moo ko yóbbu ba sama kër joxe ko fa. ma ne ko boo demee joxal ma ko diw. fekke nekkuma fi. bëggul ku ko wax mais faw ñu wax ko. man nag samay mbir dafa gaawul. ndax néew na lu may wax ci nit lu mu dul def parce que loolu boo ko waxee tuumaal nit ki la. nit nga di ko waxal loo xam ne defu ko wala du ko def. Hmm. daawu ko def nga wax ko ci biir mbooloo bëgg rek mbooloo mi xam ko. Hmm. moom ci boppam dina xam ne waxoo dëgg dina xam ne moom defu ko. te man bindewuma noonu nag. lu ma wax rek lu ma wér lay doon. Eh, ñuy sant bu baax ñi fi teew yëpp nag ñi fi teew yëpp la ñuy sant rawatina nag waa dëkk bi muy waa Tuguni ndax ñi ñu fekk si bari nañu maa ngi leen koy wax sànq ne leen bu ma déparé fii di dem fukk yu ma taseel juróom-ñett yëpp mën na am sax xaw ma leen waaye loolu ñu sante ko yàlla sant ko mag ñi béréb bii ñu toog tey ah ñu ngi ko xam naa ne sànq laa dégg sax imaam wax ko bëgguma tout de tout wi parce que procédure bi dafa àggagul eh, ndax amagul kay mais it suñu objectif moy tudde ko résidence Al amin lan motax ma tudde ko résidence Al amin du jara xam la tiawone gi bi ma fiy jëkkal la feneen laa wutoon pàkk ca buntu ba la won benn bi ci jamono yi bordu bi te waxna ko waxati ko dama koy répéter pour ñu ko xamul ma ñëw Tiwaawoon doon seet si sëñ Abdou bi ñu toogee waxtaan bi may waaj a dem mu ne ma ah, mba am nga béréb Tiwaawoon ma ne ko waaw mu ne ma fan la ma tegtal ko fa mu nekk mu ne ma foofu daal dafa sori mu dal di woo ku wax Mouhamed Ndaw ak góor gi Galo Mbeng yal na yàlla yokk leeram mu ne ko dama bëgg na nga ànd ak président mooma rek laf ma doon wax ndax jamono yi fekk président communauté rurale la na nga moom ngeen toppatool ko ci biir dëkk bi béréb boo xam ne jige na te yaatu na lii ma lay wax de boo yi quatre heures jëm cinq la ma jog ànd ñoom taal sama oto yoon bële la ñu jaar am fuñ ma wan foofu ci ginnaaw ñu ñëwaat wan ma fii fële nag gën ma convaincre waaye ñu ne ma fii moo gën a yaatu gis nga lañ doon wax tey looloo ma indi fii ba ñu demee ñu gaa yi dellu ne ko gis nañu bërëb mhm. te ca ngoon googu ci gàttal rek ci laa dog njëg gi ñu dellu ne ko gis nañu bërëb ba moom dog na njëg li mu ne woowal leen ma ko mu ñëw waa ji wàcc fekk na sax man maa ngi départ mu ne ma sëñ bi nee na nga ñëw mhm. bi ma ñëwee mu dugg ci biir pantere bi kuñ ku ñuy ñëw indi benn tëmpu xaalis muy cinq cent mille ne ma lii tàmbalee ko liggéey bi ma ne ko ah, déet sëñ mu ne ma bul wax mu dal di lem loxoom dem toog ma génn ne Mouhamed Ndaw fekk xaw ma waa tiwaawoon xam nga fi kenkaa yëri mu ne ma waaw mu am waajum ma booleel ku sant jaañ bu ma juumulee mu nga koto yële ñu dem fa ma déposé fa xaalis ba la laan demee ma jox leen ma ne balaa borom di ñëw ñu defar kayit yi nañu dal di jënd ciment bi commencé koo mool lii moom duma ko fi denc. ba ñu demee suñu première gàmmu fii bu ngeen fàttalikoo. fekk na yaakaar naa fii rek moo pare woon ci suuf. ci suuf la woon de. ma dellu si fa waxtaan ak moom. wax ko fi ma toll mu ne ma nag bis bu paree maa fay ñëwal sans bopp. Mm-hmm. loolu nekk na ci xelam nekk na ci xelam be bi sëñ Cheikh nelawee ñu dem di ko jaale mu laajaat ma kër gi mu wax ko ko mu ne bu neexee yàlla dinaa fa ñëw ma ne ko góor gi fi mu nekk nii sa charge yokku na mënatuloo ko mu ne ma teeg maa bàyyi bu ma xañ sama yool man maay ñëwal sama bopp yàlla dogal juróom benn weer lañ ci teg ah yàlla def la gën ci moom waaye loolu it njobootam bañ ko yëgee rawatina sëñ Moustapha ba fii may wax ak man lay xaar su ma nekkoon ñëwal suba suba mu ñëw da loo xam ne dafa am lu may xaar rek waxtaan ceeg waa dëkk bi mais du ñàkk am bis ñu ñëw fi ñu réceptionné ko euh, inauguré ko parce que it loolu mébétu góor gi la woon loolu nag ginnaaw buñ ci sante yàlla dañ ci nag sant suñuy mag ñi suñuy kilifa yi nga xam ne dañuy juddu fekk leen ci yoonu Tiwaawoon ñu nàmpatal ñu ci ba ñu yëg si fi ñu yëg si tey jii ndax lii bu amee tey seen barke la lii bu amee tey seen liggéey la lii bu amee tey ci seen pexe la moo tax dañuy ñaan yàlla fii daal féeg ñu ngi dese benn noyyi ci kaw suuf mu nekk béréb boo xam ne saa yi ñu yàlla mayee gàmmu jot ñu ñëw ànd ak ceeg bokki taalibe yeeg bokki julit yëpp mhm. ñu ñëw fii nekk ceek ñoom te loolu ñu ngi koy ñaan yàlla fu ñu mënti toll eh, di sant bu baax a baax waa dëkk bi imaam su ma ko waxee wax chef de village doy na jaratul may lim ñeneen ñi ci des mhm. ak gan yi nga xam ne ñëw nu ñu fi ñëw yëpp ay bokk lañu ñëpp ay bokk lañu ñoo bokk ñoo bokk suñu lépp Gabi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm wax dëgg yàlla euh, sa teewaay fii lu rëy la ci ñun euh, ndax permettre nañu aussi ñii ma nekkal itam ma wax leen ni ñu demee sama adjoint la sama doom la sama rakk la sama lépp la sama liggéey moom yemul rek ci diggante nit ak ka ci moom ak déedéet amul benn xaar ma yàlla waaw ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm